mbokk yi jër ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte àndaat ak yéen euh, soir d'info di dalal colonel Antoine Wardini ñi ngi lay nuyu. maa leen di fay. di gërëm ci invitation bi. Mm-hmm. colonel à la retraite doo gan ci kër gi. non fii daal fi 4 avril yi yàgg nañ ànd ak yow ba ci à la retraite gi bu ñu amee ay laaj ak euh, tontu yu war a dox suñu diggante. Euh, nga ñëw wuyu si ñu si ñu ngi lay gërëm di la sant kon ci euh, disponibilité bi alors euh, colonel Wardini tey li waral waxtaan wi moom mooy journée de forces armées armée ku ko wax jarul sax ñuy nekk naan ay soloom ci réew yooyu xam nañ ko mm-hmm. mais bi yoon thème bi la mm-hmm. cohésion nationale la armée bi tànn mais balaa ñu fay yegg ñu xamal askan wi lan mooy journée des forces armées ndax ñu bëri xamuñu ni ci at mi am na bés boo xam ni fii ci Sénégal yéen forces armées yi lañ ko jagleel lu ko waral luy sabab bi luy cosaan bi. oui journée de forces armées bi ñuy féetee temps yi moom effectivement euh, askan bi ñu si bëri euh, xamuñ euh, lu tax ak fañ la jógee. Mm. c' est vrai que man bi may doon dugg armée bi may dugg dugg quartier man tam foog naa boobu tam fàttaliku mun fu ñu ko doon féetee xam naa ne fête indépendance moom nationale. Mm, dañ koy féetee régulièrement mm-hmm. mais dem nañ ba fenn foo xam ne. Euh, armée dafa décider euh, célébrer journée benn journée. Mhm. te bu ma dégloo ci euh, anciens yi ak ni ma ko xamee en tout cas man en tant que mhm. ancien commandant mooy drapeau bi bu ñu français delloo suñu drapeau. waaw naa la première réunion bés bu ñu ko jox foog naa prévu mhm. le 10 novembre la woon. bés boobu nag lay tàmm nag rek bés bu ñu delloo suñu drapeau xam ne ñoo ko moom léegi jël nañ ko. foog naa moom lañ tàmm tàmm pour def ko journée des forces armées. journée yëpp. takkam der yëpp gendarme bi ñëpp a ci bokk pratiquement ñoom ñoom ñoo xam ne bés bi ñoom lañ ko bokkal uute naag bésu indépendance bi nga xam ne mhm. indépendance fête nationale la ñëpp a bokk mhm. ñun militaires yi takk ñun takk der yi am bés boobu di koy célébrer si réew mi yëpp foo lu baax la ci ñun lu kontaan nañ si lool parce que mun nañ ci euh, wane suñu jëf-jëf ci quartier gi ci dëkk bi ak wane tam li ñuy apport bi ñuy indil euh, askan bi si suñu liggéey ñu ne ñoom wane si tam suñu élèves yi ni leen di former si école yi ñu leen di préparer di leen di baptiser di leen jox ay tur tur leen ay mhm. tur yooyu yëpp si la si la bokk si journée forces armées lay bokk bés la boo xam ne ñëpp dañuy dajee fàttaliku lu bëri feete ko ensemble. tey la woon ca camp Dial Diop. makkaanu état major bi. Mhm. ci njiitu euh, président de la république euh, Macky Sall. Mhm. Euh, cohésion nationale thème boobu lu tax ngeen ngeen taamu ko. thème boobu moom euh, thème bu am njëriñ la. Mhm. thème d'actualité la. Mhm. parce que actuellement boo xoolee Sénégal te du Sénégal am na dëkk yu bëri yoo xam dafa am déchirure entre dafa am boo xam division entre euh, waa population yi. boo xoolee Sénégal fi mu nekk nii ñuy wax ci li xew ci dëkk bi Sénégal am na ay tension politique am na ay ay nit yoo xam ñi nga ànd ak ñii ñee ànd ak ñee. dëkk bi boo waxee ñii xuloo ñii xeex fi mu nekk toll nañ point boo xam euh, laaj na rek laaj na rek bu buñ sañoon daal dëkk bi ñu ñëpp ñu ànd doon mag ak xam ne ñoo bokk dëkk bi xam ne suñ dëkk lañoo koy defar moo tax mu foog ne armée loolu tax tey force d'armée ne daal nañ jéem a wax affaire cohésion nationale cohésion nationale bi mooy naka la ñuy def ba ñun ñëpp ñu déggoo ñun ñëpp ñu ànd foog naa thème boobu la gars yi doon célébré tey pour que mu dugg ci xel nit yi pour que nit yi xam ne ñun fàttewuñ leen. ñun mhm. quartier ñun quartier si yéen lañ bokk si si si nation bi lañ bokk. moo tax des fois dañuy doon wax affaire yi concept armée nation. Mhm. wante cohésion bi lu tax ñu koy yax mhm. cohésion bi mooy bo boo boo ko awali si armée. man en tout cas def na formation. def naa 38 ans d' armée te gis nga booy dugg quartier. dañ lay def loo xam dañ lay def bayotage li ñuy wax bayotage. am na ñuy wax bizutage. am na ñu koy wax bayotage booy dugg quartier mooy nga dugg bango mhm. ngay dugg école sous-officier mhm. ngay dugg école officier dañ leen di boole yéen recruter yëpp mhm. dañ leen di boole si benn muul yéenay bokk lépp li ngeen def fi ngeen di tëdd li ngeen di def li ngeen di wax li ngeen di solu yëre yàgg dañ di dër di leen dërëj nag di leen di dërëj dërëj boo xam dañuy toj seen xol dañu jéem a toj seen xol pour ah. xool ñan ñoo si am xol pour continuer ak ñoom mënul continuer coono boobu ñu daj coono boobu ñu daj pendant un mois deux mois trois mois mooy fexe ba ñun après dañuy jàppalante suñ biir dañu am benn solidarité suñ suñ biir parce que dañu sonal te

xool ndax yow am nga xoli continue wala amoo xoli continue loolu mooy tax après ñun ñu ñu suudewu ànd doon benn di dimbalante moo tax foo ñu gis koo si laal ñëpp dal sa kaw hmm. cohésion boobu hmm. boobu la ñu Sénégal mais justement nu ñuy def ba am ko ci xale yi ñun ndax dañuy def formation militaire obligatoire ndax dañ koy dem jàngale ji ci école yi ndax yéen da ngeen di détacher ay instructeurs hmm. ñu boole ko ci programme éducation nationale xale yi di ko màggale yan pexe ngeen xalaat

même bu ñu ko deful dañu def benn benn formation boo xam dañu leen di encadrer service civique national mu ngi fi. ñu encadrer xale yi cest à boole leen ñoom ñëpp di leen repos garde bu di leen àndaloo di leen di leen defloo ay ay affaire ñu koy defandoo mec euh, yi ñu amandoo les mêmes réflexes di xam li ñu war a buy war a di jàngal luy dëkk bi luy institution bi luy président de la république luy ministre. luy alal euh, bien commun bien public. Mm-hmm. nit yi il faut ñu xam loolu mais pour ñu xam ko mais il faut ñu formation de tout le temps ñu ngi naan way sensibilisation il faut sensibiliser il faut ngeen di wax dañoo wax a wax ba tàyyi fi mu te dara changé wul man dama leen di ñaan rek benn yoon ngir yàlla. Mhm. nañ def loo xale yi formation militaire ñu xool ndax dana changé wala du changé. man def naa ko defloo naa ko. Euh, les les les les hommes de médias. Mhm. bi ma nekkee DIRPA yóbbu naa leen Kaolack dafa leen fi immersion te après yóbbu nañ si yeneen camp mais dañ ko bëgg dañ ko bëgg xale yooyu tey boo leen laajee dem na ngeen laaj li ñu fa daj ak lu ñu fa ndax dañ leen influence influence wuñ kenn mais dañ lay formé di lay développé yi affaire di lay convaincre di lay wane lii mooy lu baax ba nga xam boo fa génnee lii rek ngay xam mhm. xoolal actuellement gis naa ren te maa ngi siy encouragé chef gis naa ren camp militaire yu bëri ñu ngi jël ay ay volontaires leen di yóbbu ay camp de camp d'utilité publique def leen ay volontariat dugal leen pendant une semaine wala cinq jours la former xel mais loolu lu baax. loolu loolu fan uh-huh. xam ban ñu ngi def c' très uh-huh. bien les vacances citoyennes yaa ngi fi ñu yóbbu xale yi dans les camps pendant cinq jours former leen solo leen tur yi xale yi dañ ko bëgg naka la tànnee ñi nga xam ni ñoo ñoo ciy nekk. non ay volontaire lay doon duñ kenn. ay volontaire uh-huh. bon ñun ñun au service civique national recrutement la ñu recrutement national mais armée armée dafa recrutement national bu parce que armée am na recrutement national ba pare mais en plus de armée euh, recrutement boobu nga xam ne ci liñ formé xale yi leen tàggat pour nekk ay soldats ay nit yu baax ñun temps yi ñàkkul tam euh, bu ñu xoolee situation mag neen bon jëleen ay xale dugal leen ci carte yi jàngal leen won leen luy la république luy le drapeau mhm. luy pour rek ñu xam que fi mu nekk nii il faut ñëpp jàpp ci xale bi ci Sénégal fi mu nekk nii jarut a wax sax du ma sax dugg mais ñëpp xam ne ñu mel. Hmm. te buñ sañoon daal jàmm am ñëpp doon mag ak rak ñëpp jàppalante ñëpp ànd ñu liggéeyal Sénégal. te loolu nag armée mun na ci liggéey lu bëree bëri bëri maa ngi koy wax encore fii ma yàgg naa ko wax ngir yàlla nañ def loo xale yi formation même bu ñu def formation. Hmm. ñu def sax ci curriculum xale yi académique. curriculum académique la ci seen programme yi daal. ngir yàlla ñu def ci une plage wala wala sax sécurité nationale lépp nañ ko tuddee nu la neex. Hmm. nga xam ne armee koy moom wala police koy moom wala mhm. gendarmerie nga xam dañuy ñëw jël xale yi jàngal leen fool leen mhm. et cetera mun nañ ko def si école yi comme mu xale yi mun nañ ñëw ci camp militaire yi mais il faut ñu ànd doon benn parce que loolu tam mooy sens du concept armée nation bi ñuy wax. il faut ñu ñu xam ne ñun dañ bëgg a duggante ak yéen il faut que ñëpp ñëw quartier gi ñoo ko bokk. maa ngi gis nga naan armée nation dina ñëwaat ci sécurité nationale ndax am na link ak cohésion nationale bi ndax njeexital li effectivement bu cohésion bi kiiwee sécurité nationale bi day gën a mën a euh, ñoŋ mais armée nation gis naa ni sànq ba léegi yaa ngi koy. yaa ngi koy wax dafa mel ni concept boo xam ne la et puis même ñun bi ñuy xale daan nañ dégg ci rajo bi émission boo xam ne su ma hmm. titre bi sax noonu la woon. si si moom la woon effectivement ñun concept bu concept armée nation ñun dañ ko fonk dañ ko gëm te yaakaar nañ ne moo mun a régler problème yu bëri te mooy mooy hmm. régler actuellement problème yu bëri fii Sénégal lu fi munti xew bu affaire bi ñàngee ba ñàng ba ñàng. Hmm. dañu woo armée. armée oui te armée dañ ñëw mun armée du bañ armée fu ñu ko ooyee mu ñëw ci dëkk bi. Hmm. xoolal même même même ouverture des classes ma yàgg naa ko wax waa Cotidé bi même ouverture des classes ngeen amee ay jafe mais dem ngeen wax ak général bi chef d'état-major yu mboole leen ak commandant de zone yi wala chef de corps yi ngeen seeti leen duñ génnee xaalis amuñu xaalis bi ñu leen jox ñun amuñu xaalis wante dinañ ànd ak yéen dimbale leen liggéey leen defar leen seen école bi jàpp leen fi peinture mm-hmm. ça c'est des actions civilo militaires yoo xam si si suñ concept la bokk ay mm-hmm. actions civilo militaires yoo xam pour dimbali askan bi parce que xam nañ ne askan bi amuñ ñun am na ay moyens yoo xam mënuñu yu bëri ah moyens yi am tam ñun moyens yi am askan baa ñu ko jox mm-hmm. c'est c'est l'argent du contribuable mm-hmm. ñun dañ bëgg di jàppalante ak ñoom gars xam ne quartier ñëpp a ko bokk même boo nekkul militaire ñëwal jege si ñu wax ñu sa soxla ñu jëm ànd ak yow jëm la jàppale loolu mooy mm-hmm. suñu affaire concept boobu suñ chef yi dañ ko gëm suñ chef yi dañ ko bëgg te fam autorité politique bëgg nañ ko tam mais nuñ koy defee rek des fois moo du parce que gars daf mel ni ñoo ragal armée xamu la te armée si kër gi si kër gi la bokk c'est vrai seen i mag lañ seen i papa lañ seen i doom lañ ñëw leen bu ngeen amee ay jafe-jafe ñëw seet si ñu wax ñu seen soxla ñu xool nu ñu leen dimbale ñu deen leen dimbale je pense que c'est l'occasion ñu dégg message bi parce que ñu bëri ñu ngi doon jàmbat école yi ak yu bëri alors que ni ngay wax nii amoon nañ possibilité wu faire appel à l'armée mu ñëw jàppale. général bi fi nekk actuellement général bi wax ko waxaat xam ko. mais général bi fi nekk Mbaye Cissé nekkoon na fi commandant Bat Ardi dama laaj ko. chaque début d'année. dana yónni gars yi mu def nettoyer école yi moom muy xam na ko. kon dem leen ngeen waxuma leen ngeen sonal ñu trop tam wante nag am ngeen droit ñu jege ñu ñu gën a jege loolu lañ bëgg ñu jege si ñu ñu jege armée bi mais justement est-ce que mun nga mun nga comprendre incivilité yi jóge léegi ci population yi jëm ci jëm ci armée bi dans le cadre de maintien de l'ordre souvent bu amee ba ñu def appel à à l'armée bon xam nga mun naa ko comprendre tuuti parce que nit yi askan bi ndeysaan xale yi dañoo xamul hmm. dañoo foog ne ñun dañ fi nekk pour réprimer pour dóor pour ça ñun loolu suñu ñun comme ni ma la wax ñun seen papa lañ seen rakk lañ seen doom lañ sax si lañ bokk ñun dañ bëgg rek. exécuter suñ mission bi ñuy dénk xam nga dañuy jox mission ñun militaire. Mm. quartier gendarmerie police ku nekk da mission mais bu ñu la ko joxee bu ñu la ne lii lii mooy sa mission exécuter ta mission mais foo jaar jéem a exécuter sa mission. bu ñu la ne bu fi kenn romb mais ñun bu fi kenn romb la ñu xam. bu ñu la ne bu benn ennemi bu dugg arrêté ennemi wala affaire ñun loolu la xam. Mm. gars yi nag dañu siy mere di naan lii wala mais non ñun on fait que notre mission te boo ko xale yi nekk ci mbedd yi di xeex di xuloo di saaga di bañ ëllëg bu ñu duggee quartier wala ñu recruter gendarme demal xool hmm. li ñu li def li ñuy def rek parce que mission la xam nga yow tey sa sa liggéey yow mooy def ay reportage def ay émission et mais boo ko deful lu ñu lay fayee hmm. ñun suñu liggéey loolu la tam hmm. donc xale yi jaruñu ñu ñuy mere nañ xam ne ñu seen papa lañ ñun seen mag lañ ñun seen rakk lañ seen doom lañ sax bu leen neexee ñoo bokk affaire mooy que institution yi dox mooy que réew bi aw yoon ñun nañ ko def léegi nag ne ku nekk liggéey liggéeyam rek mais ñun daal vraiment il faut ñu wax xale yi ñu jàppale ñu si suñu liggéey man damay ñaan askan bi ñu jàppale ñu si liggéey ñun tam ñu jàppale nañ ñaan yàlla réew mi dem kanam pour réew mi dem kanam nag moom mm-hmm. vraiment ni si ñëpp jàpp il faut que ñëpp xam ne si lañ bokk amul ki moo kii suma affaire la euh, kii la tant que amuñ cohésion nationale boobu armée di oote ci journée de mhm. tant amuñ ko mhm. tant xalaatuñu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi mhm. ñoo askan bi ñoo ko affaire bi ñoo ko moom affaire bi ñuy waxtaan avant émission bi dama ñu dama wax cohésion nationale nga linké ko ak sécurité nationale oui sécurité nationale parce que la sécurité nationale c'est l'affaire affaire affaire ñëpp la sécurité nationale du armée rek du gendarmerie rek du police rek ah, sécurité nationale bokk moo tax ma il faut ba tey cohésion nationale bi ñu wax. Mhm. pour ñu am une bonne sécurité nationale ñu ngi delluwaat bu ñu formé waatee xale yi ba defal leen ba xale yi yëpp ànd doon benn. Mhm. bokk bàyyi bokk ndey ña xam ñoo bokk affaire bi. sécurité fa la gën a doxe parce que dana xam li ñuy waxee dana xam lu ñu war a def lu baax ak lu warul baax da nga gis loo loo gis de lii doo ko ragale dénoncé wax la dénoncé mais tu tu rends compte mhm. ñun on dit rendre compte loo gis lu mu tuuti du rendre compte mais fi mu nekk ni Sénégalais yi boo waxee ne ah bu ma waxee dañu may mere bu ma waxee dañu may mais quartier ñu amul problème boobu ñun bu ñu gisee loo xam normalul dañuy rendre compte suñu gars yi xool affaire bi lan la demee balaa muy bu mu ëpp loxo donc affaire sécurité nationale boobu pour ñu yegg fa pour bés bi ñu am suñu sécurité nationale dëgg ba xam jihadis jihadis bu fi dëgg bande bu fi dugg ñu ñu ñu ñu joxuñ la baaraam wax fa nga nañ jëlee la il faut ñu am cette cohésion là mm-hmm. il faut que ñu nangu di di waxtaan di échangeante mm-hmm. mais cohésion pour ñu am ko encore maa lay wax une fois de plus il faut que ñu aw quartier. Hmm. man de solution laa gis parce que hmm. affaire yi civil yi yoonu civil yi critique wu kenn mais depuis at yi at ñu ngi wax lii lii lii mais ba tey y a des problèmes nañ essayer quartier bi tuuti rek. colonel euh, déjà gis nga ni inscrire xale yi école rek ñu dem jàngi ñëwaat pose souvent problème ak ni ñu toll noonu yëpp ngeen ñu bëgg defal ñëpp service militaire obligatoire. est-ce qu'on a les moyens. mais mais c'est que c'est que tam. même France mi ko mënoon mujj na ci. d'accord wante leen ngeen def. une carrière militaire loolu mooy cher carrière militaire mooy ah, cher carrière nga xam da ngay fay ay solde ak yooyu ah, ah. mais formation militaire bango mais kooku amul looy fay ngay loger vous les nourrissez camp militaire yi boo na jox bu bëri bu bëri trente mille francs la mooy wala ñude saabu wala affaire loolu du salaire li am li li cher kay mooy boo buggee am une armée de hommes ay li leen fay ay salaire loolu mooy métier mais formation militaire formation bi dafa baax ba nga xam ne bu ñu la am nga ay réflexe rek la am nga réflexe xam nga li nga war a def xam nga lu baax ak lu baaxul pour que ëllëg bu ñu la ooyee comme Israël nga mën a yegg si ñu mën defante dëkk comme Ukraine loolu lañ bëgg wante dëkk bi fi mu nekk ni tey bu dëkk bi doon lakk da gaa yoo xam ne dañ siy dolli safara sax mu gën a tàkk te loolu baaxul léegi euh, pour yow concrètement solution bi mooy dégager un budget et demloo xale yi formation boo xam ne ni ngay wax un mois deux mois trois mois la bu sottee ñu dellu à la vie civile entre guillemets. Ouais. quand euh, même s'ils ne l'ont dans ce cadre-là ne l'ont jamais quitté. pour mën a pour mën a am une bonne appréhension euh, appréhension la ñuy wax. Mm-hmm. Euh, xaw ma njeexitalu. Mm-hmm. li nga xam ni war nañ ko def. Mm-hmm. waruñu ko def mën nañ fa teg. tànk ak aussi jàppale seen armée mais xam nga boo waxee budget rek gars yi wax budget yow oh, xaalis ah, waxuma sax budget de hmm. mais volontariat c'est volontariat am na fi volontariat am na ah, fi y' a les Nations Unies les volontaires des Nations Unies ñu ngi fi. Hmm. y' a des y' a y' a des organismes qui financent le volontariat. y' a l'UNICEF y' a ñooñu financé. mais ñun bi amul mais budget bi li mel ne la pour volontariat. Hmm. actuellement man waxuma la sax bu ñu jëloon bu ñu jëloon dëkk département bu nekk tey. ñu def fa un corps de volontariat. Mm. un corps de volontariat wala corps euh, militaire sax soldat ah. mettre à la disposition gouverneur bi wala bu fekkee civil bu fekkee militaire mettre à la disposition du Comzone benn corps boo xam ay volontaire lañ sax. Mm-hmm. xam nga mooy affaire service civique national bi wax léegi rek parce que service civique national bi sax fi mu nekk ministère de la jeunesse la nekk. Mm-hmm. te man nekkoon naa fa te am nañu ay jafe-jafe pour doxal ko nu ñu ko war a doxalee. parce si service ministre civil la. Mm-hmm. te ay militaire lañ. moyens moom mooy diriger moyens yi duñ mun a am boo xam ne def mais ni ñu sax volontaire yooyu. jox jox volontariat boobu. Mhm. ko quartier. xam naa ne du liggéey quartier mais quartier mën na ci dimbali lu bëri wala au moins def ko benn structure autonome waxuma bu dépendre de communautaire autonome bu nekk comme ni ñu ko bi ñu koy sanc en 1993 xaw ma mu ngi woon au niveau de la primature boobu mhm. temps général Samba moo ko doon commandé mais boobu ça dépendait de la primature avec un xam nga kii la conseil de de de, de surveillance. Mhm. nga xam ministère yëpp dañu fay ñëw di waxtaan di xool liñ bëgg a mën leen former ay ouvrier mën na leen former ay chauffeur ay médecin ay secrétaire mën nañ former lépp jox mhm. jox ko sax ministère yi s'il le faut nga xam ne dañu fiy nekkat sax di recruter recruter ba parce que man dama bëggoon na bés bu ñu nee bay recruter dans la fonction publique ngir yàlla yonente ba ñu xalaat ñu def service militaire. ñi xalaat ñu def volontariat. ñu mel ni si sax un bonus tuuti bu bonus ñoo xam ne yow yow tu as servi pays. ak formation bi ñu mën a bénéficier formation bi nga am d' abord ak service bi nga defal pays bi si volontaire de façon volontaire. Mhm. ah ngir yàlla ñu delloo lu njukk bi sax bu ñuy joxe ay ay ay recrutement. dans ton domaine. Mhm. ñu jox gars yi jox ñu ñu sax. li ngay wax ni nuñ ko mën lëkkaleeg formation professionnelle bi nga xam ni gis nañ armée di ko faral di def. armée armée li muy def mooy bo formation euh, de qualification en emploi bu nekkee ay soldat la bu nekkee ay officier formation d'officier la am na ay ay stage ay formation à faire même booy demee bay génn tam dañuy def benn formation pour la réinsertion yëpp ñu dañ leen di préparer ba nga xam soldat bu génnee wala militaire bi am na loo xam mun na ci jafandu xanaan kay dul am moyen xaalis pour dem de mais en tout cas formation qualification bi am na ko hmm. yi dans tous les métiers am na hmm. pratiquement corps de métier c'est gratuit pratiquement. Mm-hmm. booy servir pendant deux ans c'est la durée légale. service de au bénéfice de l'État. Mm-hmm. bés boo génnee nag léegi. Euh, na la bi nag delloo njukk tuuti rek jéem la xalaat tuuti bu ñuy recruter laa wax mm-hmm. te soxla ni soxla chauffeur yow mi nekkoon chauffeur militaire ñu may la bonus boo xam da si am un peu plus que les autres bu nekkee secrétaire ñu jël ki nga xam dem il a servi l'état ba pare mais jël ay nit yoo xam musuñ servir ci mm-hmm. ak euh, Sénégal dëkk yi ko wër euh, tàkk-tàkk yi fa am mm-hmm. euh, est-ce que du point de vue tamit côté boobu on peut être rassuré ci taxawaayu armée bi on peut on peut on peut être très rassuré mm. notre armée suñu armée ñun armée républicaine bu baax la mm. armée boo xam vraiment professionnelle armée boo xam bi bi mu juddoo ba tey si mm. lu baax lañ ko gis ak lu lu dëgër boobu ba dégg ñu ngi défendre état bi ñu ngi défendre institution yi te ñu ngi sàmm kaaraange dëkk bi ñu juddoo bi quartier yi juddoo ba tey ñun amuñu benn problème ñun de bon voisinage dañ dañ tisse ay relations de bon mhm. voisinage avec nos nos nos les pays qui limitrophes ñun song wuñ kenn demuñ xeexee kenn te kenn foog naa xeex ci wuñ ak ñun loolu moom atte xeex kañ la ñu gën a waaw atte xeex la ñu te bi loolu la si suñ concept la boo xam ne moom lañ tissé avec nos voisins mhm. da am na ay cercle concentrique ay cercle au niveau régional au niveau ñëpp ñu daal xam ne ñuy liggéeytu ñoom man daal yaakaaruma mhm. mukk ab armée Burkina wala benn dëkk ñëw na dañu toog di xew ñu tam ñu ko def ak leen xanaan kay dana am ay ay sàmm booy yu jógee fee di jéem a dugg fii moo tax ñun ñuy renforcer suñu sécurité au niveau des frontières di former ay militaires mhm. di def ay camp ay garci ak yu waaw def pour pour aar pour aar askan bi ko wax mhm. mais yaakaar ñun dans la sous-région gisuma dara lu nga xam mën ñu fi jaaxal te gisuma xeex buy ñëw ci ngaw gisuma ko. ñu lay gërëm di la sant colonel Antoine Wardini journée des forces armées di di ci ndokkeel bépp soldat bépp takk der ak thème bi cohésion nationale léegi léegi ñu dellu si waat fii eh, xibaaru marax yi faram fàcceel leen ko ci kàttanu borom bi colonel jërëjëf. merci beaucoup mon